solo mais làmb ci làmb mooy question bi rek laa indiwaat nan nga gisee làmb demb ak làmb tey actuellement ñu ngi naan làmb daan na ñi neen dafa fay ñi neen mu ci diggante gëmm ak xool. waa xam nga débat bu amoon daaw. ak daawaati géej. moom la ñuy continue làmb jógeegul si li fi mu ne woon parce que soo seetloo sama interview yi ma doon def daawaati géej dama doon wax ni làmb su nit ñoo ngi naan moo ngi donc li ci des nag mooy xool ba xam dañuy fexe mu jug wala dañ koy bàyyi mu dee mais tey soo xoolee làmb fi mu féete ci yàqu yàqu na sax mais ci gën a yàqu la la gën a jege parce que tey soo xoolee ni làmb di doxee nekkatul facteur de développement facteur de divertissement la dañuy jël nit ñi di leen divertir si li nga xamante ni bien vrai que ni bon euh, sport en général am na la nga xamante ni tey benn volet ba nga xamante ni divertissement la mais dafa war a nekk développement surtout si ñiy bëre mën a développé si ñiy tëgg làmb mën si développé si ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy ñëw di seetaan si làmb ji ñu mën si am éducation de base ndax tey soo xoolee discipline la ñuy wax ban discipline ngay def kon ñi ñëw di seetaan si dañ see war a jëlee discipline mm-hmm. mais soo xoolee côté yooyu yëpp mooy commencé suuxat ñi waroon ànd ñooy xuloo ñi waroon a xuloo ñoo juboo kon làmb am na la nga xamante ni moo ngi ci biir te muy feebar ba nga xam ne nit ñi fajaguñ ko. bi ngay jël bi ngay yóotu président CNG bi pour ñu jox la ko moment boobu gis nañ ni ñu bari ci làmb moyoon nañ la bopp waaye bi bi loolu amul dañu mel ni dañu gis Kéba dafa retire loxoom ci lamb lan la. non retiré wu ma sama loxo si làmb maa ngi ñëw seetaan si lamb maa ngi suivre làmb maa ngi aussi def li ma war a def ci làmb ñama ci seqaloon kóllëre maa ngi continuer di entretenir ay relation ak ñoom di demalante di dikkalante mais seulement askanu làmb bi ñu dajaloo ki leen yilif dafa am ku mu tànn te dénkaane ka nga wóolu daa dénk ku mu wóolu monu làmb aussi am lu ñu séntu ci moom jaaduwul may génn di wax si la nga xamante ni day soog a toog day soog a falu. li ñu mën mooy di ko ñaanal yàlla yàlla <laughs> yen bi oyof ci kawam. bien vrai que yen bi li ci des bëreetul. ndax normalement mandat octobre euh, lay jeex. mais su demee ba motal nag li ñu jàngat ci nguuram ci ñaari at yi mu def dinañ ko wax fi mu baaxee dinañ ci wax fi mu échoué aussi moom ak équipe am dinañ wax. gis nga am mu baaxee am na fu bon xam Bira joxoñ ko baaraam tuuma du yomb ndax la fi newoon biñ koy xeex man boog bi ma koy xeex ñi yilif làmb dañoo jël ne non dañuy dénkaat keneen mais que ñu dénk ak ka fa newoon benn la ndax tey ci keppaaram la nekke woon ci làmb te man bi may kaas dama ne woon nañ dindi li fi ne yëpp ndax tey soo xoolee osatiru làmb ossature CNG changé wul ka ko jiite rek moo changé ñañ ci toftal aussi ñoo fa nekkoon démb ak barki démb te loolu du changement ñoom dañoo comme équipe la rek am ñu génn am ñu dugg remplaçant la te ñun changement suñ koy wax mooy dindi la nga xamante ni moo nekk foofu indi leneen lu bees la nga xam ne su ñëwee fi làmm tooglu dina ko fa mën a jëlee yóbbu ko feneen mais ñi fi nekk dañoo maintenir hmm. te maintien bi ñu def soo xoolee si wàcc la gën a féete ko yéeg. Hmm. wàcc a gis ko yéeg. ah mais li fi liñ doon kaas moo fi nekk tey ba tey lan lañ doon kaas ñoo ngi dagg mbër yi. Hmm. mbër yi mënuñu leen bañ a dagg ndax Kéba mbër yi chaque fois li leen règlement bi di tere moom la ñuy def. waaw xam nga loolu dafa am fu mu war a commencer gis nga contrat dafa am ñu ko moom. contrat lu ñuy saytu jàngat ko la. Hmm. réglement aussi dafa am ñu ko moom. mais xam nga tey aussi mbër yi manager yi joué wuñu seen rôle ci ñoom. Hmm. ndax yow da ngay yor ñaari mbër yu bëre benn bës nga bëgg a yor kii bëgg a yor kee. Hmm. xamoo fu mbër mi di entraîner. yow mbër mi li nga seq ak moom mooy diw bëgg na sa combat. signé jël say di pour cent dem toog. yaa ngi dégg te aussi. il faut ngeen xaw a comprendre aussi ne tey su dee retard. mais mbër bi moomul embouteillage bi mën na départ këram heure bi war mais soo amee gàllankoor ci yoon bi nag. gàllankoor noo tuddee gàllankoor. embouteillage mën na am. embouteillage ñu jox la 16h45 nga bàyyi ba 18h nga dugg. loolu foo jógee xanaa Tamba. man des fois damay jógee fii fii ak sama bureau normalement dama koy daw 20 minutes mais des fois ma daw ko une heure de temps. parce que du ma du ma xam exactement tey embouteillage nit ki du ko créer. yow xam nga làmb xam nga ne cortège mbër day ñëw rek jàll du taxaw fen non non cortège mbër du ñëw rek jàll parce que amul motard bu ko jiite. ak booy yi nii ko mu jàll. loolu xam nga fan laam si buntu koñam ba mu génn mais tali bi mbër yi moomuñu ko de tali hmm. su doon tey promoteur bi day fexe ba su mbër mi di départ auto police jiitu ko. Hmm. convoyé ko ba yóbbu ko ci biir làmb ji mën nañ imposé ni retard bi temps yaa ngi dégg mën nañ ko dinañ la dagg mais c'est-à-dire que aussi. loolu dama jàpp ne amut amut euh, amut lu muy yokk wala muy wàññi ci làmb ay heure bii ngay ñëw ak ay heure bii mbër bu njëkk dañ ko daan xaar ñu dañ daan toog ba dix huit heures ñëw ñuy yërnu ci tribune yi xool ban buntu lay jaar dañ daan toog ba dix huit heures yenn champion yi ñëw suñu ñëwee ñoom seen oto fi muy taxaw fan nañ leen di tëggale ñu dem bàkku mais mbër bi ñëw ci biir làmb ji dafa taxawaalu di wër fu ne mu dem fa taxaw fa mais loolu aussi wax dëgg neex yàlla suñ si daggee nit nañ waxante dëgg dañ ko bëgg a dagg rek enceinte ah, bi tamit des fois nga gis mbër moo xam ni préparation mystique bi dafa yàgg. ba da ngay gis mbër moo 45 minutes nga ne ci mystique rek 45 minutes. waaw léegi léegi ñoom bi ñu demee ba autorisé mbër di indi gàllaaj kay buñ ko wutal app bu mu koy defee ñoom ñoo autoriser làmb gàllaaj xam nga football tey mosoo gis match boo war commencé joueurs ku ci nekk di yor ay béjjën di dem ci camp adversaire am di di ko joxoñ. CNG bi autorisé wul kenn ngay indi gàllaaj da bu la neexee jokkal buy bëre bu indi dara. waaw mais làmb noonu la tàmbalee ba fii ñu àgg loolu mënuñoo mënuñu ko dindi suñ ko bëggee dem dindi ci làmb mbër yi dem defi MMA kon. Hmm. nañu waxtaan wax dëgg aussi doo dem jot sa avance ñu fay la ay nga gëm ne mottalikaay bi may am mooy gàllaaj ba pare ngay bëgg ñëw di ko profité mbër yi duñu may sëriñ yi lay parce que sëriñ boo dem mën ne la dangay daan waaw. naa ni coowal gee bi mujj du ma ne nekkoon naa ki ci gën a fës waaye bokkoon naa si ñi si gën a fës mhm. ndax li ma si ñeme woon jël ci engagement def ko am fu ma ko jëlee am fu ma ko yóbbu yaa ngi mhm. bi loolu jàllee nga soog a commencé gis gars yi def ay point de presse si làmb commencé di woo sit yëpp ñuy ñëw le kon ko loolu jàll na may naa leen ko ba ci ministre bi sax parce que man damaa génn tey une semaine après mu dajale micro yëpp moom itam génn di ko nuyu au passage di ko féliciter si affaire Lions yi. Mhm. di ko wax ne nag loolu victoire football la ak Sénégal. yaa ngi dégg victoire làmb nag comme li ma ko waxoon rek du ma ci négocier du ma ko ci neexal duma ko ci ñaan audience te li ma koy wax dina ko dégg su ko neexee dina ko dégg su ko neexut nit ñi ko jege dinañ ko dégg ñëw nettali ko ko waaw parce que man heure bu ma waxee rek li may wax dina toq ci noppam muy moom muy njiitu réew mi te comme li may wax rek dinaa négocier lu ne saf làmb duma ma ci négocier parce que tollul foofu góom la alcool la ñuy jël faj ko te nag ñoom suñu jugut wax may naa leen deux ans ya nga xamante ni kenn déggul ma dugg seeni affaire maa ngi woon sama roq di dem di dagg billet di seetaan amut benn promoteur bu ma sa mën a wax fii ne jox naa Keba billet mu ñëw seetaan si maay ñëw ak samay nit jënd billet dugg seetaan kon donc am naa droit wax ci làmb te incha allahu am na lu ñuy la waaj ñun ak waa Fatick suñu génnee koor gi écrit yu bëri yi nga xamante ne ay écurie Fatick lañu ak région de Fatick ak écurie séeréer yi ñoo ngi waaja a booloo doon benn mhm. incha allah loolu su ñu jotee date bi dañ ci communiquer ak yow su jógee ci loolu nag suñu gis-gis ci làmb bële dañ ko nëbboon ay les grandes ligne rek lañ doon wax mhm. mais bii nag bëgg nañ ko détailler point par point suñ koy def nag defuñu ko pour jël CNG bi non mhm. CNG comme li ma la wax rek ñoom demaguñu fédération demaguñu vote dañuy xool ñoom ki leen neex ñu tànn loolu choix wu état la mais ñun itam suñu devoir ak suñuy droit permettre nañu ñu dajale moom làmb ne leen ñun nii nañ gisee te soobee yàlla ñu ngi koy waaj mu nekk bés bu mag a mag ba nga xamante ni acteuru làmb waxuma la yu Dakar mais yu Sénégal les quatorze régions incha allah dinañ fa daje. pour bañ nag gars yi teel koo yàq donc xam nga sénégalais moom hmm. lu mu dégg rek commencé léegi nga xëy suba teel gis commencé gis gars yi commencé naan dañuy def la même chose hmm. duñu communiquer comme date bi mais ñoo ngi siy liggéey ñoo ngi ciy def tournée hmm. dëj bi moom xawoon na téye mais kon que 40 jours yi léegi mu jàll suñu paree ba def tournée ba dajeek ñi ñu war a dajal ba jàpp fan la ba dajale waa làmb yëpp mën nañoo dépasser 3000 mille ba cinq mille personnes yàlla rek a xam su ñëwee ñëpp toog. ñu jël ko def ko direct may ko amateur yi jël site yëpp ak ñiy def PPV ak ñëpp def ko direct pour ñu nekk bitim réew télévision yi ak journeau yi nga xamante ni tey nit ñi ñoo ngi leen di lire fii ba Kaffrine ba Kousanaar ba Kédougou ñu woo li ñu xalaat ci làmb dinañ ko wax après nag yëkkati ko jébbal leen ko su leen neexee ñu def su leen neexee buñ def mais l'essentiel daal mooy man Kéba sama position démb ak barki dem moo doon taxawal di xeex ak làmb bi gars yi dawee ñoom ñëpp rangé wu moslem ñoom ñëpp ne nuut noppi déggatoo kenn ku ci wax men num man nga fa déggul te nag liberté boobu maamoon ba doon tiim sañ wax lii metti ci làmb te lu ma wax kenn du ko dindi ci kàttanu yàlla ak yonent bi ñoo ngi ciy waajaat leneen incha allahu di ñaan yàlla senegal ak waa làmb yëpp xaar ko ñaanal yàlla musal ñu seeni pexe ñoom pexe nit yu bon yi musal ñu si pexe ñii gàllankoor lam ak ñi ñu bëgg gàllankoor ba ñu àgg seeg jàmm jërëjëf.